mii mbër la wet nga ko fële mii mbër nga daane ko wasal mii mbër nga daane ko yaru mii mbër nga daane ko beru koo gis mu yàpp la day xaru yow weesu ngay bëreeg sëriñ mii mbër nga daane ko tabe te lii taxul yow nga yabee ku daanu it nanga ko fabe te jox ko gaa koy bësal foo déggatee lamb ju gor taxoo xamal ni senn gor bëggul torox te mbaate lor yow weesu ngay bëreg sëriñ solol sa yére daagu wey waykati kañ la di la way ku daane mbër yee mata way ku daanewul mat la wayal seexi gànnaar ak yuy kajoot ñépp a ngi naa la yaa di góor kenn si ni yaa di góor ba nga defee lu kenn deful yàllaa ngi naa la jërëjëf yeneen bi naa la jërëjëf sëriñ si naa la jërëjëf ndax ndam yi yëpp yaa ko jël ku yàlla far di sab géwal yonen bi far di sab géwal sëriñ si far di sab géwal ku la wayul du la soxal ku la wayit gis ku la way ku la wayul ku la way ko yóbbu noppi mbaamu way ndax am nga tànnee fi yaa bind cey ak la jër cey lépp yaa gën a rëy kanaa ca yëg la mu naa cay lépp menn mbër nga mu rëy yaa ëmb àdduna ji yaa ëmb aljana jee yaa ëmb kay ëmbee ëmbam lépp di wey la def wax barke yow mi yaa ko yorte bu dul koo nag ragal la dana wax lul ku nekk di ndoxu naa noppi man ndaxte mag muy làqu mag la fesal yaa ngoogu waaye danaa wax lul ku dégg ni ax fu as njariñ ma sa nekk ak barke jóg na fa tey ay xota des fépp yow mi bamba yaa di nga ñaay waaw ñu ngi leen di seeraat bu baax a baax mel ni ñu ngi toll ci état bu dem Gorée comme ni ñu ko tàmbalee ci suba ba léegi muy marché pacifique bi nga xam ne jagleel nañ ko Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mu mel ni dafa am beneen cellule comme li leen ko waxoon sànq boo xam ni mi ngi féetewoo Gorée di ñu xaar bu ngeen xoolee ñu ngi ànd ak mbokki taalibe yi nii di jëm Gorée niñ ko defee foofu nga xam ni mooy ci parcelle ñu defee ko Gorée foofu mu gën a yaatu rek nga xam ne ay cellules yu bëri yoo xam ne tey Dakar lañ nekk waaye am na cellules yu bëri yu koy def ci biir mi yëpp bu ko defee rek ñu bàyyi leen ngeen ànd ak mbooloo mi bàyyi leen ñu daal di yegg Gorée bu ñu yeggee nañ ko defee woon Dakar incha allah ñu defee ko bi kon nañ leen bàyyi ak mbooloo mi rek ñu dem ba ci kanam doylom xelam na ma fëkkal bigam bind ay way ndegam kafa tuuba lëgëm ku fi doylom xelam fii na ma fëkkal bigam bind ay way ndegam kafa tuuba lëgëm su ma baaxee di gor ni bërit fay kobor bind ay way yu di ci lim ay jëfam su ma nekkeeb jullit mën a jël ay kayit di ci sàddi bayit du lu dul ay mayam ki yetee diine fay ki ya docteur di rey bu du moom ba tey du nu jaamoo këgëm ba tubaab di tër dugg kër yi di wër nara dekkel badar ku ne daw dem këram lagaroon bakkanam gën a yeesal ngëmam joxe lépp ak jëmmam li li ngeen nar du am sama mbër du bu ragal tire nañ koy fetal ak i nak yu nu yafal bëgg a jël bakkanam te taxul fi wa dem taxuloon koo wedam ci di way yoon nenam dëgëral pas-pasam dafa kàbbar ci nox bato nasaraan sëfëx ñu ni tey day ma bëx bile bis mooy bisam lambaraan ak gabon ñoom tukki bee tax ñu ñoŋ ba mu dellusee la toŋ ñane woon ci wetam nasran si dër te génneewul gobar li le rek doy na mani 18 safar moom mi ñu teggil na xar ko na xar waajal ko ngir ku ja am ngërëm ngëm mani dix-huit safar moom mi ñu teggil naqar kon nanu waajal ko ngir ku ca feeñ am ngërëm barke borom Tuuba way ndegam kafa ku fi doy loon fii na ma fëkkal digëm bind ay way ndegam kafa Tuuba lëgëm su ma baaxee di gor ni bërit fay ko bind ay way yu di ci lim ay jëfam su ma nekkeeb julli mën a jël ay kayit di ci sàddi bayit du lu dul ay mayam ki yetee di ne fay ki ya docteur di rey bu du moom ba tey du nu jaamu këgëm batu baab di dër dugg kër yi di wër nara dekkil badar ku ne daw dem këram la garoon bakkanam gën a yeesal ngëmam joxe lépp ak jëmmam ni li ngeen nar du am sama mbër du bu ragal tire nañ koy fetal ak i nak yafal bëgg a jël bakkanam te taxul fit wa dem taxuloon koo wedam ci di way yoon nenam dëgëral pas-pasam dafa kàbbar ci nox bato nasaraan sëfëx ñu ni tey day ma bëx bile bis mooy bisam lambaraan ak gabon ñoom tukki bee tax ñu ñoŋ ba mu delsee la toŋ ñane woon ci wetam Madu Bamba di jóg la taxaw jóg la taxaw la taxaw jóg la taxaw Madu Bamba jàpp nasaraan si te génneewul gobar lile rek doy na ndam madu bamba di mbër jàpp nasaraan si te génneewul gobar ak suñu jëwriñ idi yi nga xam ni moom mooy jëwriñu euh, journée mondial fii ci Gorée mu mel ni ñu ko defee woon ci suba rek noonu leen fi fekkee mu kawe njort lool. waaw sant nañ ko tedd bu baax a baax a baax a baax di sant euh, ñi yore organisation journée mondiale Cheikh Ahmadou Bamba. waaw ni ñu ko defee woon ci suba jógee mbaaru sëñ Moutala dox ba Padoa ngoon si ñu góor ñëw gore ànd ak waa Gorée yi di marche ñu ngi def tuuru gore yëpp. sant nañu bu baax a baax a baax Bamba Day bi moom kontaan nañ ci bu baax a baax a baax a baax alhamdulilahi rabbil alamin barke Serigne Touba barke Serigne ndax ñun amuñu fay yal na leen Serigne tubaa fay ndax ñun amuñu kenn ku dul Serigne Touba te Serigne tubaa moo dee si ñun ba jeex tàkk ñu koy ñaanal mbokku taalibe yëpp ba ñii ñu koy yàgg di feete ay ati at ndax Serigne Touba mooy solution bi képp ku bëgg am jàmm fii ak fañ nar jëm da ngay nangul Serigne tubaa ku nangulul Serigne Touba nag xaw ma foo jëm mais ñun nag ñu ngi sant yàlla ba ànd ak suñu baay yu baax yi nekk si biir dëkk bi ñu nekk suñu baay ñu tattal ñu jur ñu fu ñu war a jure ànd ak ñun fu ñu war a ànd ak ñun ba ñun ñu sëñ bi doy ñu kenn doy ñu ku dul Serigne Touba kenn doy suñu bët ku dul Serigne Touba kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ñu amuñu seen fay bàyyi nañ leen ku tedd ki yàlla na leen fay si daraja Rasulullah Cheikhul Khadim bi dara tawul kontaan nañ trop mbette bu mag lañ am ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp taxawaay bi rafet na sëriñ suñu mbokki taalibe di seen Jibril Kara di représentant Cheikh Modou Kara Mbacke fii si il bi tey ñu am bis bu am solo muy bis journée Cheikh Ahmadou Bamba ñu delloo njukkal Cheikhul Khadim mel ni Gorée dafa am lu muy représenté lu am solo si si yoonu murid asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu awuzu billah bismillah inna waliyallah waaw gore lu muy représenté dafa kéemaane ndaxte tur soo ko jëlee nga bind ko soo bindee Gorée keef ak raa la dafay vingt raadi deux cent da lay jox deux cent vingt deux cent vingt soo dindee zéro ba da lay jox vingt deux vingt deux mooy baa ak keef kon mooy sirru Mbàkke ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jaar fi nga xool gore li fi xew ci histoire ci mbiw ci mbuumuk jaam gi waaye bu ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul demee ca Gabon ci xasida gi ñuy wax mooy bu naa fi ci la bind xat faq kab la xat basa fad la fat duruwa naa war na fu jaay kon tey jërëjëfe Serigne Touba fii ci gore dafa war dafa yella ndaxte jërëjëfe Serigne Touba ñëpp ko war a wax ndaxte ca Gabon ba gaynde ga rëccee ca cirque ba tubaab yi bëgg ko fetal ku tedd ki tere leen ku tedd ki jël gaynde ga jël ko dugal ko ca cage ba bamba tubaab bi ne ko bamba mersi ku tedd ki jël baatu merci jooju ne ko yàllaahu yaa rabba sama wa rabbal arshi lakka saraftu jërëjëf wa mersi mu ne ko yàlla yow mi ma mëndoo jël gaynde def ko ni xar kon merci jooju yow yaa ko yeyoo moo tax mu delloo ko ko moo tax merci ngay gis le seul mot qui figure dans les xasida de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul kon ñëpp war a sant Serigne Touba ndaxte ku yëg ak ku yëgul Serigne Bamba defal na la ndaxte nit a ngi toog fële ca ginnaaw di am jàmm fekk ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moo la ko defal ndaxte nee na su dul woon doomu aadama du ma wàcce ci kaw suuf moom moo wax ne tam Dieu m'a donné l'ordre de proclamer que je suis un asile et dernier recours et quiconque veut le bonheur ici-bas et dans l'au-delà doit se réfugier auprès de moi donc ndem ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ba muy bind xasida gi ñuy wax Matlabul Fawzeyni boobu Touba àll la te ba mu koy bind fu mu toll nii mooy actuel kër sëñ Saliou Mbacké ba gaynde ga daxee fako cheikh ba fako cheikh ba dafa ñëw làqatu ci ginnaaw Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gaynde ga jaar nii fako cheikh ba jaar nel looloo ko daloon ca gànnaar ca ca ca gabon ca ginaar ga waaw ndem mala moo xam ne ku làqu ci ginnaaw ku tedd ki raw kon ma santuma ak doomu aadam marché Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ne jagleel nañu ko ñu taxaw ak jëwriñ ji nga xam ne moom moo jiitee liggéey yu am solo fii nan ngeen ànd ak taalibe ak bis bi bisu tay bii daal bisu sant Cheikh Ahmadou Bamba ak mbooloo mi nu ñu génnee ànd ak yéen tey si bis bi. gannaaw ba ñu nuyoo ba ñu sante yàlla suñu borom ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te di ñaanal sëñ Amdi Mbenn Fall yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal suñu kilifa yi koo xam ne ne ñun ñëpp dañoo wekk si ñoom ak suñu baayu baax ak suñu ndeyu baax yi nekk si daayira Touba ñu ngi leen di sant di leen gërëm taxawaay rafet na ndax jiit dafa jafe mais ñu ngi sant bu baax ba sëñ bi doolelee ñu mën a ñoom ñu ñu teg si kanam ànd ak ñun te lépp loo xam ne lu baax la pour doxal yoon bi ñu ngi siy ànd ak ñun ñu ngi leen di sant yéen ñu jógee penk waa Ndakaaru ñëw fii gane si ñu màggal ñun bis bi ñu ngi leen di sant leen gërëm te di leen bàyyi ak sëñ bi yàlla leen Serigne Touba fay ndax xam naa ne Serigne Touba képp ko liggéeyal dalay fay ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax lii moom yeex nañ koo def lii moom dañ ko war a di ko def saa su ne cinq jours yëpp Serigne Touba chaque jour dañ ko war a sant ndax gannaaw yàlla bu ñu amee jàmm si Sénégal gi ak àdduna bi yëpp Serigne Touba tax ku ko xam nag Serigne Touba tax ku ko xamul nag Serigne Touba ko xam moo tax mais nag bu ñu sëñ bi boolee si njabootam ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ñoo xam ne tànnagu leen yàlla na leen tànn ñu dellu si ñu ànd ak ñun pour ñu liggéey bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant waa Gorée yëpp rawatina mbokku taalibe yëpp ñi ñi jiite ñoom ñëpp ñoom ñëpp dañoo nangu kilifte ndax yoonu murit noonu lay doxee bu loolu weesoo tamit ñu ngi ñaanal suñu baay yoo xam ne ne ñu ñu ngi leen di fekk si daayira bi ñu yàgg a téye flambeau bi ba booba tey mosul naxa nasaxa yàlla nañ yàlla falamboo bi bañ a réer suñu loxo bu ñu paree tamit ñu jébal ko keneen ndax tamit yoonu sëñ Tuubaa moom retraite du si am ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lenn mbébét lañ am te gore mooy ñun ñëpp mooy ñu am fi kër Serigne Touba loolu moom wax dëgg yàlla mooy suñu mbébét bu gën a mag ndax dëkkuwaay gore ni mu mel ak ni mu bindoo la ak jaamu fi yàlla daf fi xaw a jafe ndax daf fi xaw a tumaranke tumaranke bi mooy dañ fi dëkk ak ñeneen ñoo xam ne xëy na bokku ñoog ñoom yoon mais teewul ñun li ñu war ñu ngi koy def ñu ngi ñaan nag ngir jëmm Serigne Touba nga xam ne ne dara tawu ko luñ ko ñaan da koy def mooy bis bi nii balaa muy tollantiwaat wala balaa ñu koy fekkewaat balaa muy ñëwaat déwén ak jàmm ak salaam ñu am fi kër Serigne Touba ñu dalal mbokku taalibe yëpp bu doon kër goo xam ne ne këru yërmande lay doon da këru jaamu yàlla lay doon bu loolu weesoo nag ñu ngi leen sant leen gërëm bu baax a baax a baax bi rawatina nag Idrissa Seck nga xam ne ne moo ñu représenté Ndakaaru ndax ñun xëy na dugg be génn bi Gorée dafa enclavé wu di dugg di génn day jafe yenn saa yi mu nekk si ay yoo xam ne day camp mu wooma ma ne ko demal nga teewal ñu moo tax nag lii yëpp gannaaw yàlla ñun luñ si mën a dox saa dox lépp fi dëkk di fi yeew te xamuñu liñ fi mën a exploité ci baatin te mënuñ ci ko mënuñu ko jëriñoo saar si la ñu gis te jaamu yàlla wax naa ne gore lay tàmbale wa euh, euh, ngor lay tàmbale waaye gore moo koy yeggale bon na nañu gën a góorgóorlu sunu taalibe boole kaak yar ak teggin yéen gune yi nga xam ne da ngeen fekk lépp sotti mu neex nooy nepp parce que démb fi la ñu daan jël diñu yóbbu ay kasoog lu nekk ñu ko fi daj te am na ñoo xam ne juddu ñu juddu woon bon nag bu ñu fi yàlla bayee ba ba tey nii ñun doon leen wax rek loo xamante ñun moo ñu dimbale ba tey jii nii ba tey lii te yéen ngeen fekk fi bon bu yen ko fi fekkee ñu boole leen ak jëwriñ boo xam ne bu mët li mu doon muy Mamadou Lamine bii di lamaan am yar am teggin war nañu góorgóorlu gën a góorgóorlu topp ci ginnaaw ngi ndegam ñun ñi ñooy ay baayam ak ay ndijaam ci ginnaaw mi ngi nii bon nag xale yi war ngeen gën a topp ci ginnaaw moom kersa la am ba xam ne xam naa bëggul wax kenn dara waaye ñun ñii seen i baay nag war na nañu mën a wax lii dëgg nañu góorgóorlu ci taalibe ndax mooy fas wi man daal loolu laa leen gën a soññ wajjal say naa yu wayal kabir wajjal kabir naa yu say kooku Serigne Touba ko wax du man maa ko wax de xale yi nañu respecté mag ñi mag ñi mën a yërëm golo yi loolu fi nekk loolu boo amulee dara du sotti bon nag nañu góorgóorlu ñun de ba léegi ñu ngi takk suñu der ñu mës a bàyyi barke Cheikh Fall duñu bàyyi mukk ñun gëmuñu ku dul sëriñ bi yaakaar ñu ku dul sëriñ bi bon nag bu ñu toogee boo waxtu wi nii bés bu mel ni toll suñu ay mbokk taalibe jaayante Dakar yàlla dogal ñoom ñëwuñ ci te waxtu woon ñu waroon ñëw ñu euh, ñëw ba léegi xam naa bu ñu teel a ñëw dana gën a neex nii sax waaye sant yàlla waaw ndax lii kat moom euh, dara mën ko fay li may mën a wax rek mooy nañu góorgóorlu ci ab taalibe loolu daal laay soñ sama bopp di ci soñ ñëpp rek. bu bari ndax euh, nit bu fekkee dafa bokk ci dara dafa war a xam lu ko ca boole bu fekkente ne nit dafa am dara dafa war a xam li mu am bu fekkente ni nit dañ koo dimbalee dara daa war a xam kak ko dimbalee kan la ndax fépp journée mondiale. Euh, Cheikh Ahmadou Bamba war na fa waaye gore la gën a war ndax gore fu nit ku ñuul sonn la te euh, sëriñ bi moom dafa noo texeel ndax euh, li xayri li xayri naa bil muntaxa kullu si saqa wayan hoo bihi seydun wa sutuxa kon sëriñ bi bi mu nu texeelee dafa doon koo xam ne kii li tax mu texeel nu ak naka la nu texeele lu nu war a ràññi la te xam ko ndax xam nga euh, boo demee ci euh, euh, borom xam-xam yi yëwat yi ñu ñëpp ràññee la ci xam-xam ndax ñoo fi indi lu bari ci technologie ak yu ñuy wax ñoom dañu am ay xam-xam yoo xamante ni yu ñuy jàngale la am na yëwat yoo xam sax bëgguñu ko ko jàngale muy ay valeur numérique yi nga xam ne moom moo am ci mbind ci tooraa ak ci seen làkk hébreu seen làkk hébreu bu ñuy wax nit ku ñuul dañ naan kushi kushi lettres yu njëkk yi kaaf vav dafay signifier euh, euh, euh, valeur numérique nom de Dieu 26 boo demee ci Torah valeur numérique nom de vingt 26 la kaaf vav ak fin wu kushi muy shin yuut dafay indi yeesh kovaski te loolu ba tey valeur numérique bi 26 euh, la te loolu moom ci la ñuy jëlee euh, pour méngale valeur numérique yooyu ñoom ci xam-xam yooyu la ñuy méngale valeur numérique yooyu pour wax li nga xam ne moom moo am ci adduna bi ak li nga xam ne moom moo nekk ci suuf seeg ci jaww ji ak ci li nga xamante ni moom mooy développé adduna ci la ñuy sukkandiku loolu nag biñ ko méngalee dafa doon yes SN yes SN mooy euh, mi ngi yàlla mi ngi ci ñoom maanaam xeetu nit ku ñuul ci ñoom la yàlla nekk maanaam léegi nag yowat yi bi ñu xamee loolu dañu jàngal nasaraan yi nga xam ne ñoom seen peuple peuple bu violent la peuple la boo xamante ne bii peuple la boo xam ne euh, euh, peuple guerrier la ñu ñoom euh, guerre yi nekk ci àdduna yëpp ñoo ko def ay ay ay 40 millions de personnes nangam lu ko ëpp dee na ci ñooñu dañu leen a indil diiney chrétien comme ni ñu indee diiney l'islam Makka pour que waa Makka jóg ci kéefar noonu lañ leen indilee diiney chrétien pour masquer seen euh, euh, violence boobu maanaam diine ju leen di wax pe et amour kon ki nga xamante ni ki moom moo wane nit ku ñuul jiite bi nga xam ne moom la jiitu ba nga xamante ni euh, léegi ñoom li leen yow di jàngal mooy da ngeen leen di réduire en esclave comme ça dootuñu xam ne ñoo ñoom ñooy les maîtres du monde looloo tax ñoom nit ku ñuul boo demee ci réew yi gën a raciste lu ñuy xeex dañ naan ñoo yem lu ñuy xeex lépp mooy dañ naan ñun de ñoo ngeen yem ñoo ngi yéen a yem waaye moo leen ñoo leen jiitu parce que dañ leen réduire ba nga xam ne gëmatuñ ñee ñoom ñoo nekk ci kanam Serigne Touba moom moo firndeel ni nit ku ñuul moo nekk ci kanam parce que euh, y a euh, moins de y a plus un peu plus de cent ans dañ ñoon Serigne Touba muy woote du dem fenn waaye tey jii ñëpp xam nañ ni moo doon Imam Sazel moo doon Malick moo doon euh, Abdoul Khadr moo doon Anbal loolu moom leer na ci mbindam kon li ñu war rek mooy ñu jéem a góorgóorlu te sax ci ak taalibe te xam ni ki nga xam ni moo la texeel amoo loo ko fayee. ñun amuñu kenn ñun sëñ Touba rek lañ am muy tey ak ëllëg nan gën a téye sëñ tubaa te te gën a doyloo sëriñ Touba nag te xam ni sëñ Touba amul morom te te moroomatul waaw. kon kii nag jëmm ji nag moom nanu topp ci ginnaawam ndax jëwrin du tuuti te ku si nekk fa nga yaakaar tey da nga defa raam defa joxe addiya sa sëriñ xool na la ba ne la que yaay sama jëwriñu kër wala que yaay sama jëwriñu mbooloo mii sama mbooloo mii que dama bëgg nga jiite leen que jëwriñ nag ku yombul ndax que di nga dégg lu nekk man mii di wax ak yéen sama kër sëriñ man maay que jëwriñu sama kër sëriñ ku lu ne lay dégg waaye nag que damay muñ la man boo tamit te nga gën a yokkoo muñ xam ni ta mbooloo nga nga yor xam ni que da ngay liggéeyal sëriñ Touba taalibe sëñ Touba nga sëñ Touba nga gëm ta te moom lañ ba boole gëm ku ñun ñëpp waaw lii nag moom tuba beneen yoone tey dañ koy gën a ñu def ko ak yendu ba ba guddi ndax temps bi xaw na gàtt waaye nag ku lu neex moom ku du doy tangeen ngeen bal maq dëkk bi aussi euh, xam nañu fi Augustin mooy maire bi mooy kilifa bi mais ku nekk aussi daf la jox sa wàll ci kilifté bi donc souvent day moom bu fi nekk ku fi nekk yaay maireu dëkk bi parce que maire tamit da ngay yaatal ñëpp bokk ci donc man dama taxaw fi ci taxawaayam moom te bëggoon a teew ci mbir mi léegi léegi laa ko jot téléphone nee na bu doon sogom beneen yoon dañ koy yaatal def ko bés boo xam ne moom mu ngi fi parce que moom nee na Baye Fall Serigne Fallou Fall mooy sëriñam waaw loolu si sekk waaw waaw waaw voilà moom da koy wax di ko da koy wax di ko jëf te di ko tiitaroo te loolu yéen ñi waa Gorée xam ngeen ko donc léegi léegi lañ ko coupé téléphone nee na moom tamit affaire bëggoon na ko teewee beneen yoon ñu war ko gën a yaatal leneen tamit ñu ngi félicité Lamane Euh, jiite nag dafa dafa metti donc aussi mooy euh, da ngay njabootee ñëpp waaw mais aussi kilifa du tuuti voilà d'accord il faut nga incarner ko nga xam ne que yaay kilifa bi nag maintenant aussi ku nekk kilifa nag ku nekk ngay njaboote mais loolu aussi vraiment nga nga xam loolu nga xam ne ñëpp yéen tamit comme ni ngeen waxee damay bëgg vraiment ñëpp booloo ñëpp nekk benn waaw ñëpp xàccandoo dóorandoo parce que gor ñëpp bokk ñëpp ñoo bokk. waaw fii catholique bu ñu xewle du nga xamee kat du nga xawle musulman yi muriti bu ñu xewle aussi du nga xam ne tijaan ak xaadir fii ñëpp benn lañu donc loolu aussi il faut ñu cultiver ko bon maa ngi remercier aussi waa Dakar yi c'est aussi ñoom dañoo bàyyi seen ay yitte ñëw fii te loolu aussi rafet na trop te ñu koy rafetlu te aussi day ñëw jekk ak teraanga sol ay tenues yu rafet yoo xam ne vraiment macha allah ku leen gis aussi respecté leen ci loolu gis naa aussi ñu ak ay jigéen yoo xam ne ñoom tamit elles sont bien habillées te lii day jëmal euh, nit ki day jëmal mbooloo SDE bi donc ça aussi Baye Diaw wax wax ju rafet parce que am na lu fi xewoon démb booy xale yi boobu xale yi juddooguñu voilà vraiment Baye Souleye yow tamit fait daal mbir mi ñoo ko bokk ñun ni xaw zira dax mina seytaani rajim rabbi auzu bika min xamasaati sayaatini wa auzu bika rabbi an yahdurun ñoo ngi jiital nuyoo bi di ñaanal Sëriñ Muntaxa Al Basiir mu yàgg fi loolu de ànd ak wér di si toftal seex Modou Mende Fall xalifatul kula Baye Fall mu yàgg fi loolu te ànd di ñaanal maanaam kilifa journée mondiale gi muy Serigne Modou Mamour Fallilou mu yàgg fi loolu te ànd wér ko ñaanal bépp mbokk taalibe te moom daanaka ñun dañ ay ndongo rek ñu jox ñu ay kàddu dañ ñoo sax bett waaye mënoo ñoo wax waaye dañuy sant rek comme saa su ne duñ koy defee maam jërëjëf Serigne Touba moom sant ko maanaam du ay du ay fan du ay weer saa su ne la chaque minute la chaque heure ak ay Thiès maam amul amul amul amul sago amul ab jërëjëf Serigne Touba maanaam monde bi ñoo ko war a yëg di ko dund te tawféex ak taysiir tàmbale nañ ko maanaam euh, kër sëñ Modou Mourtala ba jëm kër sëñ Modou euh, Boussa Dieng ñëwaat fii si Gorée ànd ko mbokk taalibe yi mu gën a yaatu waaye dañ fay ñëw gis fi nu ñuy dundee sëriñ bi mu yaatu lool ñu bëgg si lool bak Serigne Touba moom daal nii rek lañ ko bëggee lii day firndeel ne jërëjëf Serigne Touba bi yemul Ndakaaru yemul Gore fépp la ne journée bi tey bi nag di journée mondiale si Ahmadou Bamba maam dañ koy war di fanoo di ko bàyyi xel bëgg neen nag mu gën a yaatu waaye nii sax yaatu na ndax ñaar déet buñ jugoon di jërëjëf Serigne Touba yaatu na waaye dañuy bëgg mu gën a yaatu ñu fanoo ko bàyyi ko xel dañ si amoon ndigal si Sidi Muxtaar moo si joxoon ndigal ba tey Serigne Mountakha Al Basir ñu koy continuer di di di màggal di ko wëyal dañuy ñaan yàlla ñu yàgg koo fekkee ñu yàgg koo fekkee ñoo ngi tubaat ci kàddu tey jégul waat bu baax salaamaaleykum wa rahmatullah maam borom dër kenn du borom dër jarama ra ma borom dër jafe-jafe borom at ñu dellu si waat pour liggéeyal ku tedd ki ndax tamit euh, liggéeyal Serigne Touba moom mooy amul pertement te du am retraite te balaa ngoo koy xam nag ñu dem fa ñu jëm. waaw mu mel ni dañoo toll si jeexatal bés bi comme nuñ ko defee rek suba ak léegi tàmbale ko foofu ca Dakar kër Cheikh Mouhamadou Mourtada ànd ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi féetee si gox yëpp. képp koo xam ne daayira la ak képp koo xam ne yaakaar nga sëñ ñu ànd mars jóge fi nga xam ne mooy parcelle dem ba Patte d'Oie suñ borom dafit ñu jógewaat Patte d'Oie ñëwaat fii ci Gorée comme ni leen ko waxee rek am cellule boo xam ne ñu ngi fi doon xaar gis ngeen mbokki taalibe ni nga xam ne génn nañ ànd ak ñun ñu sargal Cheikh Ahmadou bambe bi nga xam ne moo def waxoon ne ijal rojon yi ilaa xawmi saadatana moo ñaan suñ borom ni defal sama dellu samam réew muy texe doomu aadama yëpp kon texe googu tax na ba tey ñuy sant ma Ahmadou Bamba bu baax moom ñu ñu defal tawféex ak taysiir ba tey lislaam kawe lool lislaam jëm kaw lislaam am solo lool ci àdduna yëpp waaye am njàngaleem nekk njàngale goo xam ne tey àdduna fépp foo ko yóbbu rek ñëpp rafetlu ko ndax diine la goo xam ni wala boog andi na diina joo xam ne amul benn benn benn gàkk-gàkk lu dul lépp si jàmm ak salaam kon ñu mel ne dañuy toll si njeexitalu tëj ñi euh, nga xam ne mooy mooy mooy bis bi ñu taxawak suñu suñu jëwriñ mi nga xam ne moom it bokk na si ñi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi ban yëg-yëg nga am comme tey bis bi bañ ko tàmbali suba ba léegi bay siwaat fii tey bay bay bëgg ñaan ban yëg-yëg nga am ci mbokki taalibe yëpp yëpp ñu nekkee féete Dakar ak ñu féete fi nga xam ni mooy Gorée waaw ah, jëwriñ kontaan naa sant naa bu baax a baax a baax a baax fi mu toll nii sama contentement mënu ma ko mesurer parce que si suba ba léegi ñu ngi déparé mbaaru sëñ Moutala marché jëm Padoa jëmal bés bi màggal bés bi léegi nag ñu ngi ci île de gore île de Gorée ku ko xam xam euh, historique ku ko xam xam taarixam ku ko xam xam yoonu muritam donc ñu jëmal bés bi ñuy jëmal bés bi di def journée mondiale Cheikh Ahmadou Bamba ñu koy célébrer fii si gore man ma nekk euh, jëwriñu coordination journée bi fekk si sama naataango ak sama mbokku murid yi nga xam ne ñoo dëkk ci île bi ñu koy célébrer à partir de 18h ba léegi ñu ngi nekk di def marche si biir île bi fu ne dugg nañ fa sant Serigne bi jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba loolu rek doy na sedd na xol te loolu rek doy na ak cant. fi mu toll nii mënu wax parce que dama am sama contentement dafa rëy daal dafa rëy lool lool lool lool.